gërëm leen sant leen mbokku téléspectateur ak téléspectatrice Tamba TV yu ñuy seetaan am mbégte tey ci seen émission à vos antennes di dalal soxna Adja Mariam Dabo di femme de développement di agent municipal di femme politicienne tey nag ñu fas yéene ñëw fii nga xam ne lañ ko fekk di siège am di benn GIE bi nga xam ne moom lay jiite Adja Mariam laata ñuy dugg ci waxtaan bi ñu bay la nga ak suñu téléspectatrice ak suñu téléspectateur donc euh, assalamu alaykum sama mbokk téléspectateur yi ma ngi nuyu ku nekk ci turam ak santam euh, di len gëreum di len sante Ousseynou ci ñew bu ngeen ñew tay ci centre khadifal tal euh mi nga xamné mu ngi saré gi len ngeen ñew fekk ñu fi ci suñu siège euh bëgg waxtaan ak ñun donc ñoo ngi nuyu képp koo xam ne yaa ngi ñuy seetaan actuellement euh, ñu nekk en direct di leen jaajëfal euh, di leen wax bisimilla parce que lii dafa nekk euh, bégte ci ñun waaw ngeen xalaat ñu ñëw seet si ñu ngeen xam ne que ñun ci askanu Tamba la ñu bokk ñu ngi yëngu ci lu bare seen xel daj ñu ngeen ñëw seet si ñu tey donc vraiment Ousseynou man dama leen di sant di leen gërëm jërëjëf aja aja duma la laaj tey sa xarit bu génn àdduna Ousmane Tanor duma la laaj tamit sa xarit Abdou Diouf waaye dafa am loo xam ne naqar bu dal suñu kaw di la ko jaale ñu bokk ko muy génn àdduna kabine Kaba Diakité bi nga xam ne yaag moom amul foo leen jaarul ci wàllu politique tey lan nga ma mën a wax ci ndem si yàlla kabine Kaba Diakité ah, loolu moom dafa nekk euh, kontante ci man soo ma laajee sama xarit euh, sama àndandoo Euh, Abdou juuf boo ma laajtee boo ma laajee aussi sama xarit sama àndandoo Ousmane Tanor nga xam ne depuis bi ma nekkee tuut tànk daanaka bi ma commencé sànni kart ba léegi bi ma commencé di voté ba léegi xaw ma ñaari parti waaw dama yaroo ci seen pegg nekk ci seen wet di leen jàppale ci liggéey bi euh, ba yàlla def lu mu def donc euh, ñu ngi am naqar boo xam ne ak tiis boo xam ne tamit Euh, yàlla moo ñu ko teg ñu tegoo ko parce que euh, ñun ñëpp ci yàlla la ñu ñun ñëpp ci yàlla la ñuy dellu euh, di jaalee sama papa sama xarit cabinet Kaba comme ni nga ko waxee nga xam ne ñu bokk nañu lu bëre bi muy jiitee union des coordination départementale maanaam coordination noor ak coordination sud nga xam ne ñun noonu lañ ko doon tuddee jëlee ko Koupantoum ba Koussanar ba euh, Jalakoto cabinet Kaba moo nekkoon responsable bi euh, ma nekkoon seen wet nekk seen doom nekk seen xarit nekk seen tuut tànk euh, nekk ci seen wet bépp liggéey boo xam ne dañ ko doon liggéey ci liggéeyu parti bi dama nekkoon ci seen wet di liggéey ak ñoom guddi ak bëccëg fépp fu ñu dem ci biir département bi ànd naa ak ñoom donc mu nekkoon sama confident nekkoon sama xarit Euh, ba ci vie familiale am vie sociale am euh, cabinet Kaba def ma doon fekk sama bureau bu situation politique amee ñu échanger ci euh, am na lu bare loo xam ne su bañee su ma si waxee def ma nangul donc amoon na considération boo xam ne ci man considération bi sore woon na trop moo tax dama koy jaalee famille socialiste yépp di ko jaale famille politique Tamba yépp parce que moom amuloon xaaj ak seen ñépp a yem ci moom ñëpp ay doomam la leen di wax mu liggéey fi liggéey boo xam ne liggéey bu am solo ndax saa yu ñu gisee saa yu ñu amee naqar saa yu ñu amee loo xam ne daf ñuy jaaxal mhm. cabinet day nekk toujours ci suñu wet di ñu xelal di ñu jàppale dañ koy ñaanal fi mu tëdd yàlla na suuf sedd ci kawam. di ko jaalee famille politique mhm. Sénégal yépp mhm. ndax ku am ñetti mandat électif assemblée nationale kooku du n'importe qui tëdd na. Euh, yàlla suufam Guinée la ko def waaye tey tey jii ñun ñii ñëpp euh, ñu ngi koy jaale ñun ñëpp ñu ngi koy ñaanal fi mu tëdd ginee foofu yàlla na suuf sedd ci kawam. soxna Marème dëgg la amatoo looy def ci politique ndax sa jaar-jaar jamono yu Abdou Diouf Ablaye Wade ba tey Macky Sall tey situation politique Tambacounda naka nga ko gisee. Euh, situation politique Tamba ni ma ko gisee. parce que ñun dañoo nekkoon parti boo xam ne dañoo organiser ndax organisation dafa baax ci parti ñun suñu temps da doon am ay section am ay comité am ay sous section am coordination mu amoon organisation boo xam ne euh, ku ci wax rek dinañ xam ne que kii mooy union des coordination moom moo wax bu dee comité wax na dinañ xam ne que kii mooy comité moom moo wax donc situation politique bi tey Tamba mun naa wax ne que organisation bi des na waaw des na loolu moom il faut ñu wax ci ñu wax ci tëddee Tamba tey tey jii képp ku jóg rek nga yuuxu ne responsable nga nekk responsable dafa yomb trop léegi euh, du ñu xool euh, sa capacité du ñu xool loo mën a apporter sa sa sa sa gox képp ku jóg léegi rek nga ne responsable politique nga euh, tegoo ko ci dama am ay nit tegoo ko ne yaa ngi ci wetu population bi yaa ngi ci say wetu militant def nekk nekk poli nekk responsable politique daal daanaka dinaa wax léegi ne defa dafa yomb waaw dafa yomb trop contrairement ak ñun suñu temps. tey xiroo bi ak ŋaayoo bi bëri na ci parti bi nga xam ne tey moo jiite nguur gi di APR loolu naka nga ko jàngatee. Euh, xiroo beeg ŋaayoo bi mm-hmm. arrangé wul kenn mm-hmm. arrangé Nous euh, def politique arrangé wul ñu deful politique parce que yalla dafa def tay ñom ñoo jité donc lu ñuy arrangé moy ñun ñëpp ñu and ñu xol intérêt population yi ñu xol intérêt dëkk bi parce que ànd dal mo gën waaw gens, mo gën ñi ñuy and nek ben say di xatiando di dorando di waxtaan di des ku ne dem sa ah bi dina waaye li li ngay indi sa sa dëkk mhm. dafay xaw a néew trop mhm. mais comme yàlla ñoom la jiital tey mhm. dañuy nangu ñun ñëpp ñu topp leen euh, euh, ñu nekk benn say comme ni ma ko waxee ndax liggéey bi gën a leer xale yi gis ci seen bopp jigéen yi gis ci seen bopp parce que fa fépp foo xam ne ànd amu fa juboo amu fa euh, li fa li fay ñëw dafay néew parce que da ngay dem ci ñeneen gox yi ñoom ñu ngi juboo ñu ngi am seen bos di ko laaj ci kaw ñu leen di jox mais bu ñu demee rek comme tubaab yi ni ñu koy waxee en rang dispersé pënd bi dina bëri de mm-hmm. néew ma du ñu am de mm-hmm. mais dina néew trop donc man appel boobu laa laay def daal ñun ñëpp nañu nekk benn euh, bokk ndey ak bàyyi ñu xam ne que Tamba la ñu am mm-hmm. ñu jiital intérêt Tamba ku jiitu ñu nangu topp sa ginnaaw ñu liggéey ndax suñu dëkk bi sonn na trop sonn na trop ci clivage yi sonn na trop euh, ci pàcc pàcc yi ñun ñëpp ñu booloo nekk benn bokk ndey ak bàyyi liggéey ndax intérêt Tamba bi parce que Tamba moo ko soxla. yéen ci nguur gi ngeen bokk waa parti socialiste nga nekk ci responsable nga ñëw tey di jàppale Sidiki Kaba lu tax nga taamu Sidiki Kaba. lu tax ma taamu Sidiki Kaba. Mhm. Ousseynou soo ma laajee loolu dinaa la ci tontu. Mhm. parce que di Kaba dafa nekk responsable boo xam ne. Mhm. dafa tàllal loxoom ñëpp. ni nga ko waxee man toog naa bu yàgg defuma politique. bi ñuy falee Macky Sall ba pare. Mhm. man de ma toogoon. Mhm. bàyyi activité politique yëpp. mais ni bi ma bi ma gis Sidiki Kaba ni muy liggéeyee nu mu taxawalee askanu Tambacounda jàppale xale yi di leen yóbbu ay ambassade passeport diplomatique ñun daanaka pour ñu am pour ñu am ko Tamba bariwul woon mhm. ci magistère Sidiki la ñu xam passeport diplomatique mu maye ko fu ne ku nekk domaine bu nekk muy culture. muy sport muy fu ne Sidiki Kaba loxo mu ngi foofu ñun koo koo loolu lañ soxla koo xam ne dangay ñëw ci base bi nga jàppale nit ñi waaw loolu moo tax mm-hmm. euh, loolu moo ma gën a animé ma mm-hmm. topp Sidiki Kaba mm-hmm. ndax liggéey yu muy def ci biir dëkk bi liggéey bu muy defal xale yi dëkk bi ak mag ñi daanaka même même bu ñu dee bu dee tey dañoo takk sa bët di nga teg sa loxo foo xam ne si Sidiki Kaba liggéey na fa muy sport bi muy éducation bi muy santé bi muy ba ci ñun jigéen ñi kuréelu jigéen ñi nga xam ne chaque fois daf ñuy dajale di ñuy jox ay financement financement yoo xam ne du am intérêt du am euh, euh, euh, du am apport boo liggéeyee nga jàppa nga boo liggéeyee ba pare nga nga delloo xaalis bi du amul apport amul intérêt donc loolu yëpp ci ay xeetu ndimbal la sans compter yeneen infrastructure yu mu réaliser Tamba yoo xam ne dañ koy teg dañ koy gis c'est mhm. palpable mhm. ça se voit à l'œil mhm. jarul ngay dem fii ak fii man daal képp ku bugg Tamba nga bugg sa askanu Tamba Tambacounda moo ma ñor te gis naa si Sidiki Kaba mu ngi koy liggéey loolu moo ma gën a anime ma ànd ak Sidiki Kaba di ko jàppale ci liggéey bi ndax nee na Tamba <laughs> donc man tamit nee naa Tamba. ñi ngi jëm ci élection locale. buñ ko dàqul la 21 mars la fas yéene doon. kan mooy sa candidat yow Adja Mariam Dabo. man sama candidat Sidiki Kaba la loolu kay duma ko sax laam-laamee sama candidat Sidiki Kaba la waaw. lu tax nga taamu Sidiki Kaba. lu tax ma taamu ndax euh, nee nañu. Mhm. ku la ku kuy raam di la jox benn dërëm. Mhm. kooku bés bu jógee taxaw. Mhm. bu la bu nee dina la jox junni di nga ko di nga ko gëm. si Sidiki Kaba ak carnet d'adresse am. ak li mu liggéeyu Tambacounda. ñun jigéen yi ñun ñoo ne Sidiki Kaba mooy suñu candidat donc man tamit Sidiki Kaba mooy sama candidat ndax xam nga ne jigéen yi euh, ñun ñu ngi def cinquante 53 pour cent ci population bi ñun jigéen yi ku ñu àndal bu la yàlla jàppalee da ngay dem parce que yàlla si boppam dafa def barke ci jigéen donc ñun jigéen yi ñun ñoo ne Sidiki Kaba mooy suñu candidat man dama koy assumé parce que gis naa lu mu liggéey biir Tambacounda donc ku lay kuy raam di la jox benn dërëm. koku bes bu taxawé bu lay dina la may jooni ding ko gëm wa ndax loxom mu ngi fi Tamba loxom mu ngi fu ne wa motax man sidik Kaba dama ci dama ci dama ci dé complètement wa bu wesso politique bi Adja marem. dañ lay gis nga yënguti ci lu soxal développement ñi ngi fii ci sa courel di ben place bu mag nga am GIE ngay jappalé xalé lolu lan moko ko euh Ousseynou politique ak développement ñoy and kenn mënu len xaj politique ak développement ñooy ànd parce que man dama constaté que ne suñu dëkk école de formation pour xale yu jigéen yi dafa néew daanaka à part CRETEF pour nga gis centre de formation boo xam ne xale yu jigéen yi dañ fay yëngu dafa néew ma xalaat dëgg la maa ngi mairie di liggéey ma am sama salaire mais ma xalaat sama rakk yi nga xam ne amuñu métier centre bi amna sax ay góor yo xamné dañuy ñëw di fi jang restauration parce que amna ñu volet restauration amna ñu volet transformation fruits et légumes amna ñu volet céréales locales amna ñu volet lait